lay fay maa ngi tudd Adja Aïta Diagne responsable des femmes APR Rufisque Nord di présidente des femmes collectif de Lebo bu Grand cap nga laaj ma si koo xam ne nii ku ma sawar la muy monsieur le maire Matar Ndoye muy nit ku baax ku yàgg sonal président Macky Sall ñun ñi toog di wax ak yow bi ñu ñëwee ci politique bi tànki neen lañ fi duggee mais moo fexe ba ñu am ci ay dàll mooy defa leen nii waxe leen mii ku li nag ku nekk ci parti bi ameel ko bor bor bi mooy lan ku ñëw soxla dina la gunge ba nga yegg fa nga jëm jël sa ndombal tànk ñëw toog ku ñëw soxla mu gunge la tey nag moo soxla moom la ñuy gunge ñi soxla bari na mais moom mi bu soxlaa dañ koy gunge te ñëpp ko war a gunge muy ku yàgg nag ci parti bi defe naa ne ñun mille 2010 ba léegi ñoo ci parti bi muy def lu doxal parti bi di ko wax di ko jëfe nag taxaw nag jàppale nag ku mel ni Souleymane Ndoye ànd nañ liggéey liggéey bu rafet mu taxaw soxla mu taxaw rayante ci ñu ànd ko di ko liggéey ba tubaarkàlla yàlla jox ko ndombal tànkam mu mu mel ni ku mel ni le ministre Ismaïla Madior même chose bi mu ñëwee Tëngéej dafa tàllal Matar loxo Matar ànd ak moom di ko gunge te ku geestu xam nañ ne weetoo tant d'autres mën naa lim di lim di lim di lim parce que politique gu Matar dafay def politique bu am solo boo xam ne nii mooy moom pakkataru kenn du pàddaate ku ñëw tamit dina ànd ak yow si xolom bu set. boo paree tamit mbuub ne la ba yàlla may la loolu nag gëm yàlla mooy tax nga man loolu gis nga boo gëmul yàlla dangay bu ñu tegee bool bi da ngay giiroo dugg sa ñaari loxo dugg sa ñaari tànk mais ku ñëw rek dina la gunge tubaarkaal la xam ne bés ngi si bés yi te bés bii di ñëw ni mu bëgg ka yàlla na ko sunu borom teg ko ci loxoom ndax nag euh, ku yàgg gunge kuy bëgg boo bëggee ñëpp war nañ la ñëwal nag ñi ma lim fii yëpp nag ànd nañ ci ak moom ànd bu rafet mu ànd ak ñoom liggéeyee la te gëmu na président Macky Sall moo tax moom bu lay jàppale utu lu mu ciy xool kenn la gëm le président Macky Sall lu mu soxla moom mu ngi ci ñit ñi sax dinañ sañ a bañantu tuuti mais moom président Macky Sall moo ko ñëw mu di ko doxal di ko nekk ci parten élection yu ñëw mu nga tegu fa mu teg ba président Macky Sall am ndam lépp lu président Macky Sall la soxla mataandooy mu nga ca de te nag ku mu neex na nga génn archive 2010 ba léegi ku mu neex demal yottu archive département de Rufisque lu président Macky Sall la woote kenn mënu ko ci tey moo soxla nag ma bëgg nag na ñëpp ñëw nag jàppale mataan Ndoye mi te xam ne bu nu ko jàppale du nu ko réccu parce que si jàmbaari président Macky Sall yi la bokk de man mi toog di wax ak yéen ay tajaay man duma waxu ñaari wax man benn wax laa xam bi nu ñëwee ci parti bi moo nu doon jàjj damay wax ne bu ñu boote woon boote bi ñëwee moo ñu jox sëru njaaga boot ñu ko di ngeen tegul fi ñu ne fa tegul kon Ndoye li muy bëgg tubaar yàlla na sunu borom teg ci loxoom muy li mu mérité nag parti li ma naan kenn ku ne soxla yi day waddi sa ñëw ñëpp a bëgg parce que képp kuy dox am nga loo bëgg waaye nag lépp lu waaye na naa soxla nag dana caa gunge ba suñu borom teg sa loxo kon tey nu am ngor nag fay bor bi nag delloo la woon foo woon te dama koy wax ne ko li ngay udd la jafe si département bi ñëpp la amal jàmm ñëpp la amal jàmm ku mu taxawal nga ne kii la gën a bëgg ndewal guddi la ku ko làmb danaa la ci ëpp maa ko jël kon doy maa ngi lay ñaanal ci barki Serigne ak Cheikhu tiijaan yeeg Serigne Cheikh Tidiane si li nga bëgg yàlla suñu borom teg ko ci loolu mérité nga ko forootu woo ko làmbaatu woo ko danga liggéey ba mu fekk la fi kon garab gi roose nga ko sax nay xam fi ne am na meññeef yàlla nga ci ca lekk ci barke yonent bi xam naa ne boo ko jotee ñu jot si kon yàlla nga ko jot ci barke yonent bi muy ku baax di def lu baax lépp lu président soxla waxoon naa ko léegi dama koy waxaat boo gëstu danga see gémma star boo soxlaa du la jafe day nooy ñu ne ku nu xam ak ku nu xam ne yor nay baax dinañ toog wax ak moom mu jël baatam jox la parce que yàgg ngaa joxey baat te kuy joxe cër tamit la Serigne Fall waxoon nee woon na boo wàccee sa bopp ba si suuf man maa la yé yàlla yégal ba sa kaw nga ne senga te ku yàlla yégal boo na senga ñëpp a lay séetu dootoo laal suuf yàlla nga mel noonu looy